أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء سيدنا محمد حامل اللواء الحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala weer yu sell yi ñu dugg nekk ci muy weeri aj yi weer yu barkeel yi jamono yu barkeel yi yàlla jéggal ñu suñu rëcc rëcc te nungul ñu suñu jaamu yàlla doon ñu dimbali doon ñu taxawu fajal ñu suñu aju zahiran wa batina bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jël nuyoo boobu rek ak siyaar bi di ko jox kilifa gi cheikh abdul ahad mbàkke di ko jox wàcc waayam di ñaan jot li ñu ko mbooleem mbokk yi mu bokkal liggéey bu sell bi ci biir M-Media Group Nourou Darayni di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ko jàppale dolli ko dimbali ba lim bëgg a liggéeyal maamu xaadimu rasul ci diine islam ji yàlla defal ko ci lu ko njortam waaye tamit yi sàkku ci moom di ko dagaan rek mbooloo mii di M-Media Group Nourou Darayni te doon bokk ci liggéeyu xaadimu rasul bi mu ñaan gën ñu cee ñaanal yàlla dolli ñu cee jàppale ba gën ñu cee defal tawféex bu baax a baax a baax ñuy siyaare mbokk yépp nag góor ñi ak jigéen ñi suñu kilifa yi nekk ci biir ñu di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar di leen ndokkeel di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla gën leen a yàggal ci suñu kanam bu baax a baax a baax di ziare boroom xam-xam yi di ziare mbokk yi teewlu jigéen ñi ak góor ñi ñëpp ñi nga xam ne daal ñoom lañu bokk liggéey bu sel bi yëpp ñoo ngeen di ziar di leen dokkeel di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu gën ñoo defal tawfiix doon ñoo dimbali ba lépp loo xam ne lii moom lañu bëgg a liggéeyal maam xaadimu rasul rek ku mu doon ji ñu rek yàlla defal la ko nu defal la ko nu kawe sa njort te am na ko man na ko sañ na ko su ko neexee mu defal na ko yàlla na ko jàppandalal bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey liggéey bi ñu ci jéem a tàbbiwaat rek di jéem a xool yenn ti laaj yoo xam ne yi mbokk yi yónnee nañ ko fii ñuy ndokkeel ñi fi yónnee ay laaj di jiital suñu sëriñ suñu jëriñ sëriñ Mbay Jaañ kilifa ñoo ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel moom dafay laaj aj maanaam xeeti aj yi yan xeeti aj la waaye tamit xeeti yu aj yooyu maanaam lan mooy taqale seen diggante ñoom aj yooyu muy laajam bu jëkk doon laaj bu am solo boo xam ne bii danoo toll ci fi mu ne nii jamono yoo xam ni jamonoy aj la te it aj moomu doon benn ponk ci ponk islam yi nga xam ne yii moom la yàlla farataal ci ñun maanaam mu bokk ci liggéeyab islam bi yàlla faratal ko ñun daal di ne walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabilan maanaam yàlla dal faratal na ci bépp jullit bu ko man sa giir ak dund boo ko manee nga dem makka joxe fa ponk boobu nga xam ne bi ci ponk lislaam yi la bokk mu doon farata waaye farata jooju tamit benn yoon la ci dund ak doomu aadama bi su ko nit ki xasee def benn yoon rek maanaam wàcc na ko kon aj yooyu tamit ci njàngaleem sharia njàngale moo xam ne bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko da koo def ñetti xaaj maanaam ñetti xaaj yi maanaam ñetti xeeti aj moo am benn bi moom lañuy wax al ifraadu lañ koy tudde beneen bi ñu koy tudde at tamattu beneen bi ñu di ko def ñu di ko tuddee al qiraan ñetti xeeti aj yi moom lañuy seyduna muhammad tegal jàngalkati fiqh yi leeral na ko bu ci nekk nan lañ koy defee sunu tànnee benn ci yooyu bu ko defee loolu la suñ bay jaañ di gën a laaj ngir ñu mën cee gën a def ak leeral ba képp ku yàlla dogal nga dem Makka ngir joxe ji ponk bu am solo boobu maanaam nga mën a jël ci ñetti xeet yi nga jël ci benn nga dem aje ko Makka ci noonu nga xam ne ni noonu la jàpp ne ca boobu nga tànn ñetti xeeti aj yooyu nag bu ñu ko jëlee benn par benn mooy danaa al ifraadu mooy lan al ifraadu ni ñu ko jàngalee ci fiqhu mooy taqdimu faridati al xajji wa baada al intihaai min jamici acmaaliha lakka adaau sunnati al umrati wala yajibu alayka shiraau shaatin wa zabxuha yowma al ciid yow mi dem Makka ngir aji su fekkee ni danga jël ajak al ifraad nga ne moom laay def maanaam ajak ifraad laay def al ifraadu mooy nit ki su demee màkka ci jamono ji nga xam ne mooy jamono yi ñuy aj maanaam mu def farataay aj ya ba mu jeex léegi su demee ba farataay aj ba maanaam aj gi yépp jeex maanaam mu daldi yéene maanaam joxe sunna yu umra maanaam def fa umra na ne loolu moo di ifraat mooy da ngay jiital aj gi ba pare soo ajee ba pare daal di jay teg umra gi bu ko defee ne ne su fekkee aj gi nga jël nag su boobaa doo war a jënd ab gàtt di ko rendi ci bésëb tabaski gi loolu mooy bi nga xam ne bii moo ci jëkk al ifraat mooy jiital aj gi ba pare soo demee ba aj gi jeex maanaam nga doog a def umra loolu nag lañ cey dégg mooy kon da ngay dem ba weeri aj gi jeex nga xam ne génn nañ ci weeri aj gi léegi nga daal di cay teg umra da nga fay toogaat di defaat umra googu fekk weeri aj gi moom jeex na ba ca toppaan mu ñaare mooy ak tamattu yow mi dem Makka itam bëgg def aj goo xam ne gi tamattu nga koy def tamattu mooy lan mooy taqdimu sunnatil umri fa ida atmamta acmaalaha taxallalta wa labista thiyaabaka alcaaliyata wa ida wasala sabaaxu lyowmi althaamini min zilxijjati axramta bi faridati alxajji wa tuwaasilu manaasika alxajji ila aaxiriha wa yajibu alayka shiraau shaatin wa zabxuha ne ne bu dee tamatoo nga jël yow mi aji ne ne boobu mooy da ngay jiital umra maanaam da ngay dem màkka def umra ba pare soo defee umra ba pare ba mu jeex nga daal di summi sa yére ya nga armale wan daal di solal sa yére ya nga aadama wan maanaam di ko sol léegi soo demee ba juróom-ñetti fan ci weeru tabaski nga daal di armal daal di fas yéene joxe farataay aj daal di topp nag jëfe aj ga ba mu jeex su ko defee nag soo defee tamaton mooy jiital nga omra ba pare wëlbatiku weeri aj gi dugg nga jox nga daal di def ak aj su boobaa da ngay jënd ab gàtt daal di koy rendi ci bésab tabaski ga ndax ni nga jiital sunna si muy omra ji moo tax dañ lay teg ne la boo jiitalee omra teg ca ak aj da bu bu tabaski jotee da ngay rey ab gàtt ci bésëb tabaski ga ñetteelu aju mooy alxiraan alxiraan nag mooy lan moom mooy niyatu sunnatil umrati wa faridatil xajji fi waqtin waxidin wa amalin waxidin wa yajibu alayka alhadiyu ne ne beneen ñetteelu aj bi mooy xiraan mooy nga boole yéene def umra ak aj ci wenn waxtu waaye itam boole leen ay jëf maanaam xiraan mooy dangay boole ne man mi dama bëgga umra aj boole leen ci wenn waxtu waaye itam boole seeni jëf di ko defandoo maanaam amuñu tàqalikoo te nag boo jëlee xiraan kon da ngay war a rey am tabaski moom itam ci bésab tabaski ga bu jotee kon ñetti xeet yi daal mooy xeet yi nga xam ni mooy xeeti aji loolu moo tàqale seen diggante li leen tàqale nag mooy gis nga bu dee ni al ifraad la mooy da ngay aj ba aj gi jeex su ko defee soo aj gi jeexee nga daal di des màkka continuer def fa umra beneen bi ci des mooy dangay dem màkka balaa fani aj gi dugg maanaam weer yi ñu aj bala moo tàmbali nga dem màkka def umra ba umra gi jeex toog nag léegi di xaar weer yi yi ñu war a aji du jot nga daal di armalaat daal di def sa aj googu maanaam gi nga ko bu mu den yi tamatoo ngay def da ngay dem màkka balaa weeri aj gee jot def sa umra toog di xaar aj jot nga aj bu dee xiraan la nag da ngay xaar ba aj jot maanaam weer yi nga xam ni moom la ñuy aj jot nga daal di dem màkka daal di boole umra ak aj defandoo leen ci weer yooyu nga xam ne yi maanaam moom la ñuy aj su ko defee li ci mbay jaan di laajat ci bu ñu xamee ñetti aj yii ba noppi nag gan moo ci gën a jàpp ni ñun ñi nga xam ne dañoo féete wàllu saw maanaam wala ñi nga xam ne ñi xañ na seen poche diisut maanaam kuy aji daal te xañ na sa poche xaalis ba demewut noona sam koom bariwut maanaam nga def alxiraan moo gën a jàppandi ndax moo gën a néew jamono ca màkka maanaam moom jamono yi nga xam ne yi moom la ñuy aj rek moom lay doon nga xam ne da nga cee boole umra ga ak aj ga di ko defandoo ci wenn waxtu di ko defandoo itam jëf ya ñu ànd nga xam ne fu weeri aj gi jeexe rek yow def nga umra def nga ak aj waaye yeneen yi ci des muy bu fekkee ni tamatoo nga def wala ifraan nga def rek bu mu ci doon maanaam di nga toog màkka diir bu yàgg yàgg ndax dañoo tàqalikoo ci fan yi nga xam ne yii maanaam mooy fani aj gi ak fan yi nga xam ne yii moom la ñu def umra ndax aj dafa nekk ay weer yoo xam ne yii ca lañ ko war a defee muy ñetti weer la muy ñu ko wax weeru korite ak diggu tabaski aku tabaski waaye umra moom saa boo ko mënee defee rek maanaam mën ngaa dem Makka dem defe ko maanaam wutu luñ ko ay weer loolu tax ñetti xeet yii boo ci tànn rek bu dee ifraat la da nga fay def temps bu bari ndax da ngay aj ba pare ba weere aj gi jeex ngay dëgg def umra bu dee ni tamatool yee itam da ngay jiitu ji Makka balaa weeri tabaski yee jot balaa weeri aj yee jot nga def umra ba pare xaar nag weeri aj gi jot nga doog a def aj gi su ko defee xiraan dal mooy bi ci gën a jàppandi nga xam ne moom da ngay xaar ba aj jot ba maanaam ba weeri aj gi jot nga daal di dem Makka boole umra ak aj defandoo leen moo gën a jàppandi ci ku sa poos di sut ci wàllu koom beneen bi ci desit mooy muy laaj ñi nga xam ne ñi maanaam dañuy dem Makka lu bare bari maanaam di fa do di fa aji maanaam kuy aji aj koo xam ne gi dafa bari daal maanaam koo xam ne ki day baamu ak aj dañu ne yuaddu takraarul xajji min an nawafil li anna faridatal xajji marratun waxidatun fil umri wa yumkinu an yuwajjaha al amwaalu baada zalika ila al amali l insaniyati wal xayriyati beneen laajam bi ci toppan muy di dem Makka lu baree bari di defi aj googu dañ ne aj aj daal farata la joo xam ne ji benn yoon lañ ko faratal ci nit ki mu war ko def ci ak dundam ne nag bu fekkee nit ki day dem màkka lu bare bare bare di fa def aji googu ne na loolu dañ koy boole ci maanaam mel ni ak naafila rek maanaam mel ni nga julli woon farata ba pare di def say naafila lu la neex ci ay naafila mën nga koo def kon daal maanaam lu baax la maye nañ ko maanaam nga mën a dem Makka ay yoon yu baree baree bari waaye benn ba dong moo cee farata beneen dem goo dem Makka def ak aj rek loola maanaam naafila la ndaxte yàlla ne ne walillaahi ala naasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabilan la wax maanaam ku ko man benn yoon lañ ko farataal ci yow kon daal ñi jàngale fiqh dañ ne kiy dem Makka ay at yu baree bari di fa def faridatul xaj muy di fa def ak aj ne ne yeneen aj yooyu ci des yépp ak naafila lañ koy jàppe tey daj ne la doon gën sax nag soo ajee benn yoon alal jooju nga xam ne ni da nga koy jël di ko yóbbuwaan Makka di fa defaat yeneen aj yoo xam ne doonatul farata yow nga xam ne ak naafila la ne ne alal jooju nga doon seet feneen foo koy dugal foo xam ne fii danga cey jàppale doomu aadama yi ci seen yitte yi nga xam ne yi moom la ñu am daal ne ne bu boobaa la ngay amee ci ndimbal loolu boo ko doon jox doomu aadama yi ne ne mooy gën a am solo ci ngay dem Makka mu nekk ak naafila kon daal lañ cey dégge mooy ki nga xam ne ki yàlla daa dogal mu am alal ju bare bare di dem Makka ay yooni yoon di fa def aj googu daal ne nañu la ci doon gën mooy alal jooju nga dimbalee ko ña nga nekkal ci seen wàlli aajo yoo nga xam ne yi moom la ñuy aajo woo muy laajaatit moom suñ bay jaañ xajjatul widaa xajjatul widaa mu ne moom ndax dafa nekk aj goo xam ne gii dañ ko jagle leen Seydina Muhammad rek wala dafa doon geneen xeetu aj goo xam ne gii dafa bokkut ak aj yi nga xam ne yii moom la nit ñi di aj waaw xajjatul widaa moo ko yeneen aj yi nga xam ne yi moom la ñuy aji màkka rek ñoo yem waaye aj googu li tax ñu tudde ko xajjatal widaa mooy Seydina Muhammad at moom nga xam ne mii ci la doon def farata boobu muy faratay aj googu dafa tombeek nga xam ne mooy dafa nekk ci ay fanam yu mujj yi nga xam ne yii maanaam xam na ne moom aj gi su ko defee ren dootul ñëw màkka maanaam yàlla day dogal mu dem ñibbi ca boroomam maanaam day wàccab liggéey loolu tax ñu tudde ko xajjatal widaa muy aj gi nga xam ne gi mooy aj ak tàggoo ga ndax li firndeel ne moom loolu la mooy Seydina Muhammad ba mu yégee ca jabalu Arafat dafa def xutba bu ama am solo bu yaatu lool jàngal ca nit ña lépp loo xam ne li moo aju ci seen wàllu diine te ba muy tàmbali xutba ba dana leen ayyuhan naasu isma'u minni laali laa alxaakum baada amihim hada fi mawqifikum fi mawqifikum hada ba muy tàmbali xutba dana leen yéen nit ñi na ngeen ma déglu bu baax a baax ndax fii ma daje yéen tey jii de mën naa am dootuma fi daje ak yéen kon gis nga mën naa am dootuma ci fa dootuma fi daje ak yéen jooju mooy indi sababab xajjatul widaa mooy aj ga nga xam ne kii aj ak tàggoo la maanaam yonent bi da caa tàggoo rek moo tax ñu tudde ko noonu maanaam événement ba loolu da caa tombe muy tàggoo ga moo tax ñu tudde ko xajjatul widaa waaye amul benn xajjaloo ak ni nga xam ne nii moom la ñuy aje yonente bi dafa aji woon rek xam ne dootu dellu si day day wàccab liggéey muy tàggu julli ña tàggu mbooloo ma waaw loola it ca bés booba la la yàlla waxan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakumul islaama diinan foofu la noonu yàlla wàcce aay yooyu ne tey jii daal lépp loo xam ne lii lu aju ci diina la moom matal naa ko wàcce naa ko ci yéen ndax keroog Seydina Muhammad wax na ne lépp loo xam ne lu aju ci diina ji la ñu war koo jaamoo yàlla waaye tamit yàlla waxam ne lépp loo xam ne li ay xewal la it wàcce naa ko tey ci yéen ndax mi ngi ma dëxañ nëbb ko ci biir jaamu googu nga xam ne gii moom ngeen war a jaamu yàlla ci islam bii kon xajjatul widaa daal loolu la mooy ak aj ak tàggoo la waaye moo yeneen aji rek ñoo bokk yeneen laaj yi ci topp jëwiñ Muhammadu Ngom ñing moo ko fi yónnee fi saytu jëw di ñu liggéey bi ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax moom itam di rafetlu taxawaayam ak liggéey bi ni mu koy saytoo di ñaan yàlla gën koo dëgëral gën koo jàppale ba yéene ji mu am ci liggéeyal islaam ci mbooloo mii yépp daal yal na ko yàlla defal lu kawe njortam dañu ànd ko moom bi jay sayda muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam mu dungam day laaj xukumul udoxiyati maanaam tëbaski lan moo di ab wàccuwaayam ci lislaam danañ ko al udxiyatu sunnatun muakkadatun li xawli nabi sallallahu alayhi wa sallam thalaathun kutibat alayya wa hunna lakum tatawwuun al witru wa naxru wa rakaat al fajri li xawlihi taala fa salli li rabbika wanxar muunu ngam day laaj tëbaski gi nga xam ne gi moom lañuy jubal mu nekk ci suñu kanam yal nañ ci yàlla àggaleeg jàmm bi jay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan mooy wàcc waayam ci lislaam maanaam lan moo di ab ateem ci lislaam dañ ko naan al udoxiyatu sunnat mu akkadat maanaam tëbaski moom doonul farata waaye sunna la waaye tamit sunna su dëgër la soo xam ne si suñuy soññ doomu aadama yi maanaam jullit ñi ngir ñu di ko bàyyi xel ba di ca taxaw taxawaay ba nga xam ne bi moom lañ ca war a taxaw bu tabaski jotee tabaski sunna la su dëgër dëgër ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam am nay wax yu baree bare yoo xam ne wax na ko ca moom tabaski moomee waaye tey dañ ciy jël ne ne sallallahu alayhi wasallam sayyidina Muhammad nee na ñett ngi yoo xam ne dañ ko farataal ci man man Muhammad ma war koy def waaye yéen sama xeet wi ñi ma gëm maanaam yéen moom sunna la ci yéen maanaam bu leen neexee ngeen mën koo def su leen neexee it mën ngeen ko bañ a bàyyi waaye xéwal gu rëy rëy ca nekk ngeen ko dee def ñett yooyu nag ne ne mooy alwitru mooy julli safa ak witre dafa nekk loo xam ne moom da koy def saa su ne waaye itam an naxar muy ray am tabaski itam ak rakaatal fajri am ñaari rakka yi nga xam ne moom la julli bala ñuy julli faratay suba ne ne ñett yi daal man moom dama koy war di def saa su ne waaye yéen sunna la ci yéen ndax yàlla da ko wax ne ko fa salli li rabbika wan xar na ngay julli te sa borom tax waaye tamit na ngay rey ay tëbaski te sa borom tax kon daal loolu moom lenn la ci wàccuwaayu tabaski muy sunna la te it sunna su dëgër la ku ko mën rek nga war ko mën a taxawoo ba tey bokk na ci wàccuwaay boo xam ne bii tabaski am na ko ne ne wa kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yu daxi bi kabshayni saminayni azimayni am la xayni ne ne bokk na ci wàccuwaayu tabaski sayyiduna muhammad jamono jim fi nekkee at mu jot ñaari tabaski la daa rey ñaari tabaski maanaam ñaari xar la daan rey moom seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci saa bu tabaski jotee xar yooyu nag ne ne xar yu yu duuf la daa doon waaye tamit xar yu rëy la doon doon waaye tam daanañu seetlu muy xar yooyu ñaare dañuy am kawar gu ñuul ak gu weex maanaam lañuy raxaante te ne ne loolu kon dafa bokk ci lenn ci loo xam ne lii wàcc waayu tabaski la te ne ne nam leen doon def itam ñaari xar yooyu ak lam ci jubloon mooy fa kaana yuddu jaw ahaduhuma wa yaqulu bismillahi wallahu akbar allahumma haza an muhammadin wa ali muhammadin thumma yuddu jaw al axara wa yaqulu bismillahi allahu akbar allahumma haza an muhammadin wa ummatihi mimman shahida laka bi tawxiidi wa shahida lii bil balaax ne na ñaari yooyu nga xam ne yii moom la Seydina Muhammad daan rey tabaski ci at mu nekk ne na benn bi da ko daan tëral daal di wax ni ñuy rende mooy booy rende da ngay wax bismillahi wallahu akbar ne na Seydina Muhammad bu tëralaa menn xarma ba di ko rendi day wax bismillahi wallahu akbar daal di ne yow yàlla tabaski mii may rendi nii mu jëkk mii maa ngi koy rende maa ngi koy def sama tabaski ak tabaskeem sama waa kër maanaam fasaale naa ci sama waa kër maanaam tabaski mu jëkk mi danaan mii moom man maa ko tabaskee maag sama njaboot daal di jëlaat meneen xarma daal di koy tëralaat daal di waxaat bismillahi wallahu akbar daal di ne yow yàlla meneen xar mii may reyaat itam dama ko tabaskewaat waaye itam fasaale ci sama xeet wi nga xam ne bi ñoom ñoo ma gën ñoo ma gëm xeet bi nga xam ne ñoo ma gëm topp ma di jaamu yàlla maanaam meneen xar mi daal su ko daa ren bi da da daa wax ne yow yàlla mii nag moom ba tey maa ko tabaskee waaye fasaale ci sama xeet wi nga xam ne bi gëm nañ ma topp ma mooy képp koo xam ne ki yaa ngi seere ne yàlla kenn la di ko jaamu ak it yónnit gi nga ma yónni maanaam mën na nga ne yow yaa yow yàlla yaa ma yónni ne ne daal képp ko am pas-pas boobu rek maanaam bokk nga ci tabaski mii nga xam ne mii moom laa rendiwaat fasaale naa leen ci ñoom ñépp ba tey bokk na ci wàccuwaayu tabaski ne ne waqad raxaba rasulu sallallahu alayhi wa sallam fi l udxiyati fa qaala maa camila aadamiyun min camalin yowma annaxri axaba ila llahi min ihraaxi dammi wa innaha la taati yowma alqiyaamati bi quruniha wa ashcaariha wa azlaafiha wa inna addama la yaqacu min allahi qabla an yaqaca min al ardi fa tayibuu biha nafsan fa tayibu biha nafsan ba tey bokk na ci wàccuwaayu tabaski seydina muhammad xemem loo nanu lool nu fonk tabaski te di ja jéem a góorgóorlu mu daal di wax moom seydina muhammad ne doomu aadama daal bu bésu tabaski jotee defu ca maanaam du ca def lu gënal yàlla maanaam mu tuur deret maanaam mu ren di am tabaski leneen bésab tabaski daal jaamu yàlla ya luñ ca mën a jaamoo yàlla rek ne ne la ci gënal yàlla mooy nit ki maanaam daal di cay ren di xaram wala ren di ci am tabaski ren di ci am tabaski ne ne lu doomu aadama def rek ci bis boobu tuur ca dara jooju moo ko ko gënal moom yàlla daal di wax ne xaru loolu nga xam ne ni moom nga tabaskee ne ne soo ko su su bés penc ba maanaam loolu nga doon tabaski ne dañuy boole lépp lu bokkan ci tabaski ma rek muy béjjën yaag kawar gaag weyaag lépp lu ca bokkoon daal mën nañ ko wax ci tënk ne ne dañ koy indi tegal ko ki ko tabaski woon bu bés penc ba waaye ne ne tam deret jooju nga xam ne ji buñ ko rendee day tuuru ci suuf noonu ne ne balaa tuuru ci suuf maanaam yàlla jël na deret jooju maanaam defal ci nit ki la nga xam ne bi moom la ko cay defal ci ay xiwal deret jooju doog a tuuru ci suuf yàlla da koy daal di fay ne kon su ngeen dee tabaski daal ku ci tabaski lu tabaski ma rëy rëy lu mu seer seer na ngeen ci am xel mu tey ci ne moom ak jaam yàlla la koo xam ne gii yàlla nungu na ko kon loolu itam day nag ab tënk ci lenn ci wàcc waa yoo xam ne yii tabaski am na ko ci biir diine islam jiit nga xam ne ji moom la ñuy dund ba tey muudu nga muy laajaat ala man tajibu al udhiyatu léegi tabaski nag kan lay war dañu ko naan tajibu al udhiyatu ala man tawaffar fihi shurutul muttafaqu alayha wa hiya al islaamu al aqlu al xurriyatu al iqaamatu al istitaatu ne ne tabaski daal képp koo xam ne ki charte yi may wax daje na ci moom rek tabaski war na ko buñ ne war na ko nag doonul war ak farata waaye dana naan maanaam mën na koo def am noonu nañ la tabaski moom sunna la waaye buñ naa war na ko mooy daal yow jullit bi daal su la ko yàlla man loo te charte yi daje ci yow man nga tabaski la ñuy wax mooy al islaam mooy nga nga nekk ci diine lislaam maanaam nga doon ab jullit al aqlu da nga doon koo xam ne kii ko amam xel nga waaye al xuriyatu ak ku moom boppam al iqaamatu te bañ a doon gan maanaam dëkk fi nga nekk ba tabaski jot fa ak al istitaatu ak nga man ko ne ñeent yi daal mooy charte yi nga xam ne kum dajoo ci moom rek war nga tabaski mooy nga doon ab jullit amam xel moom sa bopp bañ a doon gan fi nga nekk waaye itam te nga mën a amam tabaski maanaam nga man ko kon lañ ciy dégg rek mooy ki doonut ab jullit bu tabaskee moom baaxut duñ jàpp ne tabaski la waaye ki nga xam ne ki yàlla daa dogal maanaam yorutam xel maanaam ñu koy wax ab daf moom itam tabaski waru ko waaye itam ki ñu ki nga xam ne ki yi moomul boppam xam ne nekk na ci loxoy jàmbur moom itamit waru ko waaye gan gi nga xam ne gi daa ne ci béréb bi tamit tabaski waru ko waaye ki nga xam ne ki mënu ko itam bu mu dem di ko lebi wala mu ci def yenn yoo xam ne ay fitna la yen di di indi coono wàcc na ko mënu ko su ko defee daal loolu ab tënk la moom itam ci ki nga xam ne kii maanaam tabaski bu jotee mën na ko def mooy bu charte yooyu dajee ci moom rek mën naa tabaski la ca toppaan mooy shuruutu sixatil udhiyati shuruutu sixatil udhiyati ak it xar moomu wala boog tabaski moomu nga xam ne mii moom la ñu war a rendi mu ngir mu doon am tabaski maanaam nan lay mel ba mën a doon am tabaski moo xam ne boo ko defee rek mu baax dañ ne ittafaxal mazahibul arbaatu anna al udhiyata min bahimatil an'am maanaam al mazahibul arbaa mooy al mazhabul maliki wal xanafi wa shaafi wal xanbali mooy borom ñeenti ngir yooyu yépp d'accord nañ ci ne tabaski daal buñ koy def day bokk ci jur gi nga xam ne gi moom lañuy wax bahimatul an'am muy tujjee jur gi nga xam ne bii moom lañu yàlla daganalal ñu mën koy rend di ko lekk suñ ko soxlaa ak di ci tabaski ak di ci tudd ay doom loolu lañuy wax ne leen am tabaski koon day bokk ci jur goo nga xam ne gi moom lañuy wax bahimatul an'am bahimatul an'am nag mooy lan mooy al ibilu wal baqaru wal da'nu wal ma'isu maanaam bahimatul an'am mooy giléem ak ay nag ak xar ak bëy loolu la ñuy wax bahimatul anam nag giléem xar bëy yenti xeet yi jur gi daal lañ ne kuy tabaski benn ci ñoom nga war a tabaskee waaye kuy tudd doom it benn ci ñoom ngay war a tudde maanaam ñoom moom la ñuy tudde doom moom la ñu war a tabaskee waaye tamit kuy rendi ngir bëgg ak ndawal itam ci ñooñu nga war a rendi ak ña xeetoog ñoom nag am na yeneen yu baree bari yoo xam ne yii bu dee ci wàllu rey lekk la rek moom bari na waaye bu dee ci tabaski la daal dane na nga jël ci yenti xeet yi benn muy na nga wut giléem walaw nag walam xar wala bëy su ko defee ne ne wa yastamilu dalika addakar wal untha min kaafatil anam min kaafatil anwaay ne ne nag ñeent yi mu la wax góor ak jigéen moo ci yem maanaam bu dee giléem gu góor la wala gu jigéen mën naa tabaski bu dee nag wu góor la wala nag wu jigéen mën naa tabaski xar mu góor wala muy jigéen mën naa tabaski bëy wu góor wala bëy wu jigéen mën naa tabaski kon boo ci am rek maanaam day daal di mën a tabaski su ko defee ñeent yooyu itam bala muy mën a tabaski moom itam jëm am nga ci benn ci ñoom bu ci nekk daa am ay ab temps boo xam ne bii maanaam moom la war a am maanaam muy muy ay at wala ay weer dog a mën a mat am tabaski loolu lay wax ne ittafaqa al mazahibu al arbaatu ala an tabluxa al udhiyatu as sinna sharia al mahduda ba tey boroom ñeenti ngir yi comme nañ ko waxee fee ne d'accord nañ ne bahimatul anam anam mooy ñeenti yee ba tey d'accordoot nañu ne ñoom ñëpp d'accordaat nañ ci ne li nga xam ne li moom la ñuy tabaskee daal maanaam dafa bu ci nekk dafa war a am at ya nga xam ne yi moom la sharia tëral ne su ko amee mën a doon am tabaski su ko defee dañ naan min ad-da'ni sittatu ashhurin wa min al-ma'izi sanatun wa min al-baqari sanataani wa min al-ibili xamsu sanawaatin yow miy tabaski sharia ne na la bu fekkee ni am xar ngay tabaski xar mi su amee juróom benn weer mën naa tabaski moo xam góor la wala jigéen la bu dee aw bëy ngay tabaskee bëy wi dafa war a am am at soo amee at bu dee góor la wala jigéen la mën naa tabaski bu dee aw nag ngay tabaskee dafa war a am ñaari at nag wi su amee ñaari at moo xam góor la wala jigéen la mën naa tabaski waaye bu dee giléem ngay tabaski itam moo xam giléem gu góor la wala gu jigéen la dafa war a am juróomi at soo amee juróomi at mën naa tabaski ba tey bokk na ci charte yi nga xam ne day tax tabaski wér li ngay tabaskee maanaam baax muy alxuluwu min al uyub al atiyati al awru al maradu al araju al hëzlu al umyu waaw ne ne ba tey li ngay tabaskee itam moo xam xar la wala bëy la wala nag la wala gilim la na ne na nga fexe ba ayib yi muy bëgg a wax ni maanaam bu mu ca am maanaam bu mu am genn ci ayib yi muy wax muy alxawru mooy bu mu pat almarad wala mu am feebar alaraj wala mu làggi alhësl wala mu yooy ba amut graisse alom yi wala mu gumba ne na yii yépp daal moonaam na nga góorgóorlu yow mi tëbaski la ngay tëbaski boo koy na nga ko xool ba mu mucc ci yi mu la wax nii muy bu pattee maanaam benn bët bi mënta gis baaxut waaye bu ca feebar nekkee itam feebar bu ràññee ko ba ñu gis ne dafa feebar mënta tëbaski waaye su làggee itam ba laago ga tere ko mën a dox bu baax a baax nga xam ne bu ànd ak jur ga dañ koy raw lu bari bu boobaa du mën a tëbaski waaye itam su yooyee ba xam ne daanaka ku ko gis xam ne dafa yooyu ngokk boobu du mën a tëbaski waaye su gumba itam te mooy ñaari bët yépp mënuñoo gis moom itam du mën a tëbaski maanaam lañ koy tënk daal ci ne ngir mucc ngir tëbaski mi baax daal ci tënk daal na ne assalaamatu min jamiil uyubi ndaxte inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiban yow mi tëbaski daal ñi jàngale fiqh dañ ne la soo ko mënee bépp bépp ayib boo xam ne bii nekk na ca jur ga rek maanaam soo ko mënee moytu ba am geneen gu ko amut mooy gën maanaam li ngay tëbaskee daal la ci gën mooy lépp lu di ayib rek maanaam lu bokkut ca loola ngay tëbaskee maanaam nga gis ne lii ayib la ci moom ne na daal nga fexe mu bañ a mu bañ caa am ndax gis nga dañ ne naan ayib yi dafa bari lu mel ni maanaam bu fekkee ne dañoo dagg geen ba yooyu mën nañ koo moyu bu fekkee ni dañoo dagg nopp bi ci digg bi wala ñu dagg ko ca famu sës mën nañ ko moytu bu dee dañoo xar nopp bi itam wala ñu bënn ko yooyu yëpp mën nañ ko moytu bu bëjjën yi dammee itam di naaj ci wéragut su boobaa mën nañ ko moytu cib tënk daal bépp ayib boo xam ne bi daal boo ko xoolee gis ne lii moom am na ko ci li nga bëgg a tabaski rek ne ne soo ko mënee moytu nga bàyyi ko te dem wuti moo xam ne mi mucc na ci ayib yooyu yëpp nga tabaski ko mooy gën yàlla na yàlla defal tawfiix te àgg nañ ci tabaski bi jàmm te ñu xam ne tabaski moom la yàlla wax rek la yàlla wax rek dañ ko war a xam mooy la yanaalallaaha luxumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum nañu xam ne loolu ñuy rey mu doonu yàpp ñu di ko jaamoo yàlla daal maanaam loolu ñuy lekk googu ñu koy lekk rek maanaam duñ ci amee yàlla waaye lañ ci am yàlla mooy maanaam ñu def ko ngir ne dañ koy jaamoo yàlla jaamu yàlla googu ñu sellal ko yàlla dong tax ñu ko def ñu di ko def te bu daray àdduna ax ñu di ko def kon lan yanaala laaha luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum kon yal na yàlla defal tawfiix jooju ba ñu mën ko di ko def te suñ ko defee it ñu def ko ak jaamu yàlla goo xam ne gi yàlla dong lan ko defal ba mën caa am njariñ la nga xam ne lii moom la nu ci yàlla di defal adduna ak alaaxira bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullah